Euh, bokki jullit yi ñi ngi leen di wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi ñu leen ko daan defalee rek ngeen di fi yége seen bopp ci yiw muy ci dakar midi point net bi fadilati jàmbaari sallallahu alayhi wa sallam ji muy Cheikh Alassane Sène taar yàlla li bu sottee tey ba ñëpp mën ko xool di ci bég yàlla nga ko jaarale ci yëngu-yëngoom ak sababam ñi ko ñaanal rek ngërëmal yonent bi yàlla na ko ko yàlla defal defal ko Seydina Ousmane defan ko jëwrin aale ndaw xaaji Malick seen defal ko Assane Sy Mansour Assane Diallo maam bu naa ma Sow xaaji Malick Sow euh, Seydina Ibrahima Pen ñi ngi ziar ñëpp ak képp koo xam ne bokk na ma ak yow Cheikh Alsane nga xam ne ñi ngi yëngu ci fondation sallallahu ala muhammad di ndokkale ñëpp nag ci weeru koor wu tedd di ci waxaat rek alhamdulilahi rabbil alamin euh, ndax weer la wu màgg woo xam ne yërmande yàlla kese la làmboo ñu di ci tatagal ñépp di ñaan ñu oor ko ci jàmm bismillahi rahmaani rahim eggali ko ci alhamdulilahi rabbil alamin kenn bañ ko wuute cant gi nag dañ ciy diigal yàlla ba mu jeex tàkk ndax ku buruxlu ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukk ak juróom muy trois cent soixante cinq jours nga burux lu ko ba mu jàll gàcc gu ne dal fi sa morom natt bu ne yàlla teg ko fi ko gënul xew-xew bu ne xew fi yépp jéggi la ba nga fekkewaat war nga santaat yàlla euh, te naga ni daaw la ñaanoon yàlla ne ko may ñu ñu fekke déwén boole waale ca yeneen yuñ ca feggaloon kon bu ñu yàlla nangulee déwén jooja di ren nañu am njortu lu rafet ne yeneen yañ làqoon ca biir yépp nangu na ko moom subhanahu wa taala weeru koor nag mbokk yi mu ngi noonu di weeru sell di weeru ngëneel di weeru bark di weer woo xam ne li mu làmboo dara ci benn weer làmboo wu ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li ko daan bégal mooy bu weeru koor teroo parce que day xam ne xeetam wi dagg nañ bonus boo xam ne euh, buñ ko sàmmoon teg ni ñu leen ko waxee mën na leen a jural tàbbi aljanna te yàlla nañu ko yàlla defal euh, yonent bi sallallahu alayhi wa am ay sart yu bari yum joxe woon ci weeru koor ndax moom mooy exemple wala mooy lumière bi nga xam ne moo ñuy niital fi ñu war a jaar koor nag bi ci jiitu mooy dangay ngay sellal sa yéene bala nga cee dugg ndax jullit lépp lu muy defal yàlla rek na ca jiital yéene ju sell moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imriin ma nawa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbir yëpp mi ngi aju ci yéene ju sell te kenn ku nekk la nga yéene rek la la yàlla di fay mu delloo waxaat ne niyatul mumini ablagu min amalihi jullit daal bu yéeneem sellee moo gën a rafet jëf ju mu naroon a def te yàlla dogalul mu am doole yi man ko def kon liñ ciy déggee rek mooy weeru koor wi teru na waaye li ñu ciy duggee mooy yéene ju sell fës naa yéene woor fan weeri fan su yàlla dogalee ngant dab la ci diggante bi comme ni ko suñu borom bi subhaanahu wa taala jàngale ci alquran ne fa man kaana mari dan a ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar koo xam ne ngant dab na la ci lu deme ni feebar da nga wéra di mënuloo wala tukki farata dab na la ci nga war a dog ah su boobaa yéene jooju day dog boo demee bala la gaaroon teggeeku la su boobaa da ngay beesalaat yéene ji soobuwaat ci koor gi muy jaamu yàlla gu sàkkre nag goo xam ne yàlla mi ñu ko digal bi mu ñu koy digal daf nañu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yàlla daf ne farataal naa ci yéen xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koor comme ni ma ko farataale woon ci xeet yi leen fi jiitu woon waaye nag ñun ñu ëpp ci sens mooy dañu am loo xam ne xeet yi ñu jiitu amuñu ko woon yàlla ne ku fekk ci yéen weeru koor fa man shahida minkum shahra falyasumhu ku fekk ci yéen weeru koor wi na ko woor waaye koo xam ne ngant dab na ko mu feebar wala ngant dab na ko tukki dab ko boo xam ne farata la du tukki boo xam ne dana bijji bàkkaar su boobaa daal na dog fan yu tol ni la mu leb bu demee ba jamono neex mu fayaat loola mu leboon kon yàlla euh, beneen bi ci desin mooy lim ci jublu mooy ñu mànge ci ragal yàlla te dañuy wax ne laal la yàlla yàlla bu ne xëy na rek lum nar a def la moo tax yàlla laal laam toujours borom téere yi dañu accepté ne lu mu nar a def la moo tax mu ne la àlla kon nag mbokk yi koor a ngi noonu ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla gën a góorgóorlu ci dirasat alquran di ko jàng gën a góorgóorlu waat nag ci nammaat suñu xol namm suñu jikko namm suñu xel fas yéene baril jàng alquran fas yéene baril saraxe fas yéene baril dimbalante fas yéene baril euh, mboolem xeeti ibaadaat yoo xam ni parce que weeru koor benn boo def dañu lay fay fukk euh, weeru koor rek nga ko mën a am moo tax yonent bi sax daf daan wax ne naw nawmu saa'imi ibadatun ku woor nelaw yi muy woor nelaw sax jaamu yàlla lañ ko koy bindal xam nga di nelaw ñu di la fay ci koor rek la ko nit ki mën a amee mbokk yi kon nag yàlla nañu yàlla may ñu mën a fekke koor gi tal ko boole ci wér man ci jaamu yàlla te am nañ ci yaakaar parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni woon suumu tasixu woor leen ndax ngeen wér Euh, naam sax ci science dem nañu ba découvrir ne nit ki euh, bu demee ba téye ay organam ci lekk ak naan quelque temps bu ko saxalee ñetti fan dina am beneen rythme bu muy amaat ci wàllu wér-gi-yaram nga xool ne kon ku woor dana xeex ak sa cholestérol ku woor dana xeexak sa suukar ku woor dana xeex sa tension ku woor dana xeex ak sa yeneen ak yeneen ak yeneen kon lépp lu ci yonent bi waxoon rek loolu lu mu xamoon la lu nekk ca biir yal nañu ko yàlla defal yal nañ bokk ci xaaj bi koy teewee dewan ndax nag mbokk yi euh, jullit lu koy wutal aw yiw waru ko sàggane te it waru ci yéex ndax yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala buggul kenn ci ñun échec ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yonent bi dafa xir ci ñun boo jàngee alquran da ngay xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmande ji mu ñu làmbal ñun xeetam wi amul wenn xeet woo xam ne seen yonent làmbaloon na leen yërmande ju toll noonu kon mbokk yi koor daal a ngi noonu euh, weeru def lu baax teru na weeru dox ak bokk teru na weeru saraxe ñu fay la fukk teru na weeru zikkar ñu fay la fukk teru na weer woo xam ne nii ci ngay nawaafil dundal ci néeg yi bañ ko def nu mel ni ay bàmmeel parce que yonent bi daana ko wax daana wax ni bu leen def seen néeg yi mu mel ni ay bàmmeel ñu ne ko néeg nu ñu koy defee bàmmeel yow mi yàlla yónni mu ne néeg daal bu fekkee borom nelaw ak tëdd yeewu rek la koy doyee néeg booba bàmmeel lay mujj soppi ko kon ñu bañ a soppi néeg yi bàmmeel laalaat sajaada yi yeesal njàpp yi jëlaat kurus yi fas ci yéenaa jaamu yàlla ndax fanweeri fan bariwul teyit nag mbokk yi juróom benn fukki ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukki fan ak juróom ku la ca daggal fanweer nelaw woor ko li ci des lépp nga lekk ci naan ci yi la daganoon lépp ñu delloo la ca wax dëgg yàlla privilège yooyu ku la ko defal desee lu la dara euh, te mbokk yi yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala euh, daf ni koor su ngeen ko defee man seen borom maa leen di fayal sama bopp amul kenn ku ma leen di booleeg wala ma délégué leen ak moom ndax moo ko wax ci xaddisul qudsi ne assawmu lii wa ana ajzi bihi koor daal man yàlla maa ko moom maa koy fayal sama bopp te nag mboolem xeeti jaamu yàlla yi benn bu ci nekk njistal mën na ci dugg ba mu des koor nit mën na di julli ñu ne dafa bëgg ñu ne ak a mën a julli nit mën na di saraxe ñu ne ak a mën a def nangam nit mën na di euh, joxe azaka ñu ne ak a mën a def nangam waaye koor moom fu ko nit ki defee rek daf di dëgg ci moom parce que jege lekk jege naan jege soxna si jege yi ñu la tere woon yépp nga fas ci sa bopp téye ci sa bopp ba doo ko touché ngir lan ragal yàlla goo am kooku la muy def dëgg la ci moom moo tax yàlla na kenn du ko fayal kenn man seen borom maa leen di fayal sama bopp kon mbokk yi koor a ngi noonu ah, yàlla nañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ak alhamdulillahi rabbil alamin mboolem xeetu ibadat bu ñu ci def rek ñu ñaan yàlla sunu borom bi yàlla nañu ko fulal di ñaanalit nag encore une fois suñ jàmbaari l'islam ji Cheikh Alassane Sène taare yàlla yàlla na yàlla mottali mission bi muy doxal yonent bi yal na ko yàlla defal ngërëmal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak képp koo xam ne ànd naag moom di leen souhaiter euh, bon ramadan yéen waa yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan dakar midi point net euh, di leen jaajëfal di leen wax euh, kooru jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu